xam ngay góor am jafe-jafe ci sa biir néegu sëy wolof nan ko niw kattan ngay teel a yëg sa bopp ci boy jote mbaa na mu war a di manqué jokkool ak Cheikh Thierno Béy di Diallo mi ngi fii ci diwaanu Mbour dendandoo loolu ak croisement Sali bu Mbour ci ci bii ñuy wax kax ci quartier Metsef ci 78 447 28 38 jàngoro jiw am ci àdduna boo jokkoo Cheikh Thierno Diallo daf la koy dal di saafaral. Sénégal 4 TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage. man moom yaawalaa yaawalaa ak 1000 pour cent 1000 pour cent laa ci yaawa yaawalaa de man yaawalaa de waaye du man waaye nag li la bi mooy joor dafa war a am wujju dama kaa yéere mu am wujju benn maa joor dafa war a takk ñaareel ñaar. mère bi dafa war a gagné euh, maanaam dafa war a atteindre objectif am ci doomam voilà le problème mais nag yaamama bëggum bëggum bëggum mu am lu ko naqari diggante Madior ak diggante Fanta Diallo ak yaamama bu problème amee yaama laa faral ak quelle que soit condition problème bi nu mënta demee man yaama laa faral voilà le problème man yaama laa de waaw yaama laa far de waaw faroo fenn yow de moom faroo fenn démb fii nga doon wax Madior ak kee nu te tuddati yaama tey nag ànd ma si maajoor ak Fanta Diallo Yo moom faroo yo. Yo yow moom Fen, fen fenn wante di nga am problem ndax Fanta yama bu yégee ne mariage bi foofu la seen diggante di tas boobaa nag ma xam fan ngay féete. waaw delloo siyaar sant yàlla alhamdulilah du soxor du bon dara umpu ko ci seen xamante waaye umpoon na leen bëggante xamante bëggante du benn. mbëggeel gi da ko umpoon waaye xamante gi umput ko woon mbëggeel gi ko umpoon wala la problème te bu loolu sax maire bi dafa am droit takkal maajoor ñaareel góor dafa war a nef bu takkee jabar balaa dara xew dafa war a takkaat jabar voilà am ñaari jabar oto kenn du ko dawalee premier premier mënut dawal dara kii dawal oto premier doo ko jëm wala la problème amul leen loo xamante ne benn lay ron lu man a exister lu normal loo gis la ñaar benn lay commencé jëm kaw maa jiwa dafa jot mu takk ñaareel dafay takk ñaareel loolu rek la amul leneen waaye am a am ñaareel am wujju xam ne moom kenn ko góor yàlla bind ko pour kenn nit wala da ko bind pour ñeent nit wala la problème lu bëgg ko ñu akki moo ko yokkee dana moom ko fan fenn moom mi jaay réew ñu ko takkaree fàtte ñaari ñëwee wujjee moom dana réglé dana xam ne affaire bu du moom kenn moom kenn dañ ko bokkaate voilà asalaamaaleykum na ngeen def ñu fekk si fekku fi woon sank Adama lala la awa maa ngi leen fay ci lu ngeen nekk yi ci si bu baax te meer lu muy bon bon bon lu muy kii yëpp wax yëpp di coow yep yaay yaay joor ak sen seen xamante dara ump ko ci ndax lépp ci kanamam la lépp ci kanamam la dara ump ko ci li ci am sen diggante yëpp dara ump ko ci. kon nag bu doxalee nii soxor ak bon ndax balaa ngaa dàq kéwél mu jëm ca àll ba nga dàq ko mu jëm ci kër ndax doom joor doomam la ndax bu sëy woon ci feneen am fa problème moom moo koy dem lijjanti kon nag amagu fi sax problème ak jëkkëram war kaa jàpp téye bu baax a baax bu sëy woon feneen da koy jàppale da koy aar da koy suturaal da koy dimbali sàkkma joor di sëy ak kon nag ko war a gën a jàppale moo gën muy jàppale Fanta Diallo mi nga xamee ne mos nee naa yaayam moo ko sobe <laughs> na fàttaliku demb waaye digganteem ak yaay joor demb waa laala man sax jàpp naa ne joor moom moo war a wax loolu joor buy lim ay noonam instant ay mboqam ñu ciy jiitu ndax bàjjanam bi mu bokk ak papaam nday ak baay ah nekk noonam paasewul mu nekk ci bunt kër gi di ko di ko buntaxataal waxatuñu mu ne da koy uta wujju kebe yu bokk benn papa muy dem di kompaloo ak ñeneen di ko ay plan di ko ay dil am ñu kooku bi lim ay noonam ñu bokkal di rek ñooñu lay njëkk a lim waxantuma nag keneen ak keneen waaw waaw dafa mel ne ma ko jàpp laa seet noonu ne Mariama Gueye lay doon di wax amin ci ñaani baal lañ làq yal na yàlla boole baal ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaw yow dégg wax <laughs> maajoor bëgg mu ne maajoor bëgg Fanta Diallo maajoor bëgg na Fanta Diallo day sago rek sa sama bëggee sa dafay simple ndikki ki bëgguma la tax nga bàyyi ko lu may simple di ah fii góor yaa ngi dafay doxaan jigéen mu bañ mu topp ko insister lu gars yi nag premier prix la insister premier prix la insister bu ngeen waxaane daa nangu <laughs> maajoor loolu nga naan ci Fanta Diallo <laughs> premier prix la insister bu ngeen waxaane mu nangu bu fekkoon ne koo topp di ko doxaan soo soo soo ko dama laa bëgg mu ne bëgguma la nga pare ji kon mu yomb fii ñi fiy bëggan di aimé yëpp commencé da yëpp dañ doon bañ a nga nangu te taxul ñu bàyyi leen te gis nga te nu neexee loolu si daal garaaw dina ñëw rek dinaa se laaj li ma la xam ko takk rek parce que bëgg na ko leen di ñaanal jàmm nag te di koy sàkku ci yéen di dugal beneen yoon rek di ñëw si commentaire bi maa joor ak joor moom maire bi Adama si yow lay dalee parce que yaa fi wax doom bàyyi maire bi bu dee daa bëgg takal takkal Madior Fanta Diallo yow xam nga ne joor ku mëna sa yaay ñu ne yow kii rey na sa yaay te si kër gi la jógee nga accepté ko booy lu la ni xolo naqari ñëw ko kooku buñ la takkalee du la kenn waxul ne góor benn jabar moo ko tax a jóg wala yow da ngaa dégg ne ñun dañoo ragal wujju ñun jigéen yi am na nag ragal te am na ñu ko bañ mais ñun bokkuñu sax yàlla xam na loolu te joor Fanta Diallo ci jëmmi boppam bu dof dof la ba dugg sëyam ak Madior dina ko rëccu salaamaaleykum wa rahmatullah sama waa groupe Madior ak Dior nuyu naa leen si yaax leen si loo leen nekk may na ngi si jàmm alhamdulilah ah nuyu naa ñëpp macha allah nuyu naa ñëpp bàyyiwuma kenn kenn ku si nekk rek fekk naa la fi nga toog ne la ñëpp sama loxo bi di lay wax na la baal ma ak si at mu bees nii ñu dugg te maa ngi baal ñëpp ak di ñaan yàlla yal nañu yàlla boole baal ñu teewee ko ay déwén déwén gënal ñu ren lépp luñ fi jaamu rek yal na ko suñ boroom nangu ci barke Muhammad at mi yal na doon at mu gën ci ñun ci barke Muhammad ñëw faxas lépp loo xam ne mooy tilim tilim doon gàkk gàkk doon taas taas ci yaram mi nit ñi ak dëkk ak nit ñi. lépp yàlla na ko suñ borom faxas mu génn fi jug fi mu doon at moo xamante at mu ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko sañ na tamit suñ borom def kenn ku si nekk fi nga toog rek yàlla na la yàlla may jàmm yàlla na la jàmm sanal ci barke yonent bi te bu ba wax ne man bëgg naa sëy bi tamit su boobaa ngir yaayam tax mu def ak tegi a teggi waxi kilifaam ñu bari di lor seen ñu bëri ñu ngi lor seen doom yi te xamuñu ko sëy bi su ma si àndee man yaayam dina dem te sa doom mi ngi koy takkal bëggut ko su boobaa bis bu sëy sëy si kër gi balaa muy njëkk dóor kenn yow lay dóor yow goroom yow mi ko takk andi ko fi waaw ba pare nag te jëkkër ji di ko def lu ko naqari di ànd ak kenn di def lu ko sax mu pare nag mooy waral mu fëgg ay dàllam ndaw xoolaat leen bu baax a baax bànn annonce bi ngeen xoolaat bu baax a baax affaire yi fan la jëm. Fanta li xew si jamono yi jamono yi ñu nii fi jamono toll léegi góor góor day doxaan jigéen day doxaan ba ñuy jàmm ah yu dem la wante jàll dafa doxaan ñu bëgg koo takk ko loolu rek gis ku bëgg topp ko doxaan ko kooku bëgg ko takk ko voilà lu problème yu dem nag lu ngeen bëgg ah jàmm waaye yéen yéen yéen da góor di ko topp wante jàll loolu def defu dara li li jamono moom def dafa xew jigéen ñi doxaan moom dafa xew léegi moom yow xam nga ko sax voilà le problème ah, bi bàyyi ko foofu rek seetaan ko maire bi fi mu toon nii daa akaan fi mu toon nii day takk Fanta Diallo day ñëw bu ko defee Dior am lu ko naqari ah dëkk ci xol bu jeex loolu la yaakaar mais fi toll nii moom moo nar am xol bu jeex mooy indi Fanta Diallo ba noppi Fanta Diallo di ko teg loo xam ne du ci mën dara. loolu daal kenn xamu si dara jabar boo koy takk yaakaar nga yaay si man jigéen yàgg na fay gis euh, euh, yàgg na fay fii nit yàgg na fay tànnal jabar ju baax wax ne bañ koy tànn ku baaxaloon ñaaw ñaawoon ci moom yaakaar loolu takk ko mu ñëw décevoir leen. nit yàgg na fee tànn jabar indi yaakaar na ñi ko naan kii baaxul mu dëgër boobu takk ku ñëw am ci loo xamante ni kawe na njortoom loolu dara ci loxo yàlla ne fàtte daal la sax ne daal lu mën a xew moom bëgg na maa joor te bëgg dëgg la ci moom te loolu moo am solo ni joor bëggee maa joor muy dëgg ci moom loolu la fàtte daal la bëggee maa joor muy dëgg ci moom bu ñëwee dina ko sëyal te yàlla tax loolu moo am solo ay da koy recevoir yooyu cor xamul sëy moom yaakaar rek la sëy du contrat du garant amul contrat amul garante da ngay gëm yàlla nit ñi daa gannaaw boo ko bëggee te yàlla tax dëgg da ngay gëm yàlla dugg ci rek waaw lu ci gëmee gar ko des nga bàyyi yéen yi sëy moom mënta neexa neexa neexa ban na xadu ci am moom des yi il faut kenn ki day comprendre moromam rek bàyyi am nga bàyyi mu jëd ngeen mën a jaam yàlla sinon moom kenn dem fen voilà. ah pourtant sera baax la sera day nangu di <laughs> xaw sera la xaw ma sera waaye sera bi daal nangu na moom sera moom nangu na sera baax na la ñu na sera ki nga digal génne ko loolu loolu du fan loolu bon loo bonul génne sera mais génne sera nag wax dëgg yàlla lu baax la lu baax la. yeneen saa li mën a fànq de mën yokk gudd fan yii lu mu a yokk daa bëri na moom génne sarax moom mën naa yokk gudd fan mën naa musiba li ci nekk kenn mënu ko wax bëri na de waaw aka baax maa yow daal Fanta Diallo moom mënoo ko fee défendre nag seexandoo ku nga xamante ni ñi yow bu fekkonte ni maajoor daf kaa bëgg da koy fekk ci peggu ndayam mu fekk ko fa takk ko def ko comme joor waaw kay waaye topp ci nit mun la fa ñukku ah takku la takk keneen loolu ñàkk fayda rek mooy ñëwaat nga di ko toppaat nag ñàkk fayda gi mooy ñëwaat nag di ko toppaat fekk ko seen kër nekk fa nag di def lu ñor ak lu ñorul fi ne ni kër ga def fa dara dara defu ko fax waa Adama Salla yaay si jaam ah léegi taarama loolu daal la bëgg a def ak ñun ah. <laughs> waaye na sàmm ngorom moo gën nag te xam ne doom boobu doomam la bu mu ko jëndee koo xamante ni kii xamu ko Fanta Diallo boobu muy farale bu mettee ba metti day dellu ci ay mbokkam te boobaa joor a fay des waa kay moom nañ njëkk suuraale loolu waaw même bu fekkee olof moo ne kuy lim say noon say mbokk ñooy njëkk a jeex hmm? ba tey baax na mais daal moom war na sóoraale loolu tamit